di feesal sac ànd ak ñun ça on adore Fallou on aime ça c' est magnifique bëgg nañ des chefs d' entreprise comme Omar Diallo bi moom semi c' est la énième fois qu'il nous appuie jël xaalis jël ay moyens yónnee ay employés mu teew ak ñun te problème bu ñu fi desee bu ñu nee ko Omar war nañu régler yi mu régler ko ñun bëgg nañ ay jeunes chefs d' entreprise yu mel noonu yéen population bi nag Alassane amul seen fay man awma seen fay jaraaf Ousseynou Ndiaye ak frère am Assane ñëw nañu fi teew quai de bi dafa bëri kenn mënu ko liggéey ci benn fan dinañ ànd ak Baara Ndour ak le président Fedre Ndour waa quai de pêche xanaa yee ko moom danañ ànd ak Ndoureen yi ak Baara Silla ñoom yónnee nañ fi 21 pack d'eau ku ne dañ waxal li nga def danañu ànd ak yéen lii ñu def tey ñu mottali ko ci quai de bi parce que mënoo boole quai de pêche bi ak lii. su nit ñi takkul won tay liggey bi du yegg te ñi fi ñew man andi wu ma len alsan mo len andi ñu ko ci sant di ko gëreum yéen xam ban xeetu projet ngeen am mais c'est un projet intéressant pour Sénégal c'est un projet intéressant pour Hann bel c'est un projet vital pour la baie de Hann et de ñi ci alaykum mbokk yi fi teew yëpp mag ndaw góor jigéen ñi ngi sant yalla suñu borom di julli ngeen teew tedd sallallahu alayhi wa sallam mais di leen nuyu yéen ñëpp dilen leen masawu coono di leen jaajëfal bu baax a baax di kontaan bu baax ci li nga xamé ni mom mo fi am tay bu la nga xamé ni waxon na ko ci bu njëkk ba ku ko def tay du ma wax ni pêcheur yi ci géej nga ko defal du wax ni marier nga ko defal yaraax nga ko defal parce que nañu bàyyi suñu xel ni comme exemple li ñuy wax CPA bi nga xam mom lañu jité muy co-gestion entre le pêcheur et le gouvernement cogestion la parce que jamono danaan danaan dafa metti woon dogal yi danaan jóge ci kaw ñu xëpp ci kaw géej gi mool yi lii moo fi am mu nekk lu metti leen ay problème ñu toog xalaat ni lii lan la ñu ni mool fokk leen jël salaamaaleykum leen di sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay mais balaa may commencé ma doon naa ngeen tàccul ma baax a baax a baax monsieur Alassane Thiam

c'est-à-dire mu set setal benn ànd même si même si que mënuñ ko setal bu baax mais dañ ko setal pour benn bala euh, quoi pour pour pour viser quoi. waaw maa ngi jëloon nag dama mënu wax léegi si laa ñëwee gis ko expliqué ko activité bi mu ne ma dinaa si jàpp comme si sama activité la te loolu gis naa ko donc moo tax aw ma fayam parce que mobilisation bu bu ñëw nii yëpp. à 95 pour nañ ko tàccu bu baax a baax a maa ngi dégg nag si ay noppi nit <laughs> que amaana damay politique et tout ça man ku ma àndal ku ku ànd ak man man yow laa àndal bu leer bi ku ànd ak man yow laa àndal mais entreprise bi c'est apolitique bokkul si politique parce que euh, maanaam. souhaité naa liggéey ak ñëpp donc man mun naa ànd ak Alassane Thiam mais nekkul entreprise bi moom la àndal encore une fois donc encore une fois di ko gërëm di gërëm la gendarmerie nationale et di leen wax ni pour rapprocher une entreprise de nettoyage à domicile entreprise bi nga xamante ne day yëngu lépp lu jëm ci setal que ce soit setal sa kër setal say bureau setal fin de chantier yi wala setal say bâtiment incha allah tey dinañ prévoir benn procédure de recrutement bi nga xamante ne yaraax lay basé wu maanaam zone yaraax moom ñoom ñooy liggéey si biir entreprise bi waaye te bon yàlla def na si sax maam moom bu ñu si doon wax li ma jëkk a wax ne ma samay jeune maanaam maanaam su ma lay soutenir da nga may garantir benn affaire c'est-à-dire da ngay soutenir jeune yaraax kon ça veut dire que moom moom Alassane Thiam kon ma ma ngi gërëm bu baax te bis ni ki tey man maa ngi ko dem on a preuve lépp si ko dem encore mais bon bi ak euh, sama mag yi di baaralu waaw moom tamit bu jàppale moom bu baax nekk suñu mag bu baax nekk si koñ bi ñu jàppale am na yi nga bu ma yegg sax mais ay liggéey yu ñu doon def te si doon jàppale bu baax a baax donc ñoo koy gërëm di ko sant waaw di leen ñaan ngeen baax a baax. di dalal sa entreprise euh, ci yaraax nga ko souhaité en tant que jeune bon euh, muy lu ñu marqué nag lu ñu neex tamit waa di wax aussi euh, jeune yaraax wala jeune Sénégal. ñu def ni fàllu parce que loolu la ñuy laaj loolu la ñuy laaj ci gone yi tey mooy kenn ku ne jóg am sa njàng wala sax nga ñàkk a jàng mais dem créer benn affaire pour sa population wala pour sa gox kon fàllu mention spéciale bon Mbacke aussi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di rafetlu aussi sa discours bu baax parce que yow dama la bëgg ndax discours du tey yàgg na nga yàgg di def discours yu mel noonu parce que doo bàyyi dara fépp di nga ko laal te koo laal ku ne rek war na mën a gis boppam ci jóg pour defar boppam parce que kenn ku ne rek njëkkee ci sa bopp ba pare door a mën a dem feneen quoi Alassane Thiam aussi ni ko Fallou waxee laa koy waxee man Alassane Thiam moo may tax a def politique man mosuma politique mais Alassane Thiam moo may tax a def politique vraiment tout le monde fan yële ci gannaaw moom moo woote woon nettoyage bu mag sur la plage de Soumbédioune ànd ak mool yi ànd ak mairie bi ànd ak ñëpp def fa nettoyage bu mag mu waxoon ma Mbàkke dinaa ñëw xool lan ngeen def ci canal 6 bi 2014 ba yàlla def ma nekk conseillère municipale ci commune de Pape Fass Colobane mais nekk aussi la présidente chargée de l'environnement des communes ñun nag ñu am même problème bi nga xamante ne ànd moom la am muy la baie de Soumbédioune ko gisul tamit. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk si tur sa sant di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér la di nuyu ñëpp nag di si jiital nag jigéen ñi. ndax tey jigéen ñi amul benn jigéen boo xam ne nekkee nga sa jigéen ñëpp si mbedd mi lañ nekkee ñi ay sax dañoo teel a taal pour génn pour ñëw ci liggéey bi ndax PDA bi suñ ko defaree yàlla ak ñun ndax ñun ñoo fi dëkk di wax nag comme ko ñi fi jaar ñëpp waxee rek ñi ngi remercier ñëpp di si jiital suñu suñu affaire yaa ngi ko dundal wér-gu-wér ak bopp bi. ñun nag tey jii dañ fee ñëwee ñaari kese. ndax ñun dañoo yor maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw comme ni ko Fallou waxee rek mm, sama collaborateur la ci Oracle service léegi ku bëgg a ku emploi bi intéressé rek mu dina jàllale numéro bi après ngeen ngeen jaar ñu defal leen entretien bu fekkee soxla nañ dinañ leen jël incha allah. Donc, Monsieur Alassane Tchao. maa ngi ñëw ñëpp di am mbégte ak contentement ci activité bu nga xamante mom lañu fi ñu tay ñoo commencé sans remercier la jeunesse de Anne Beller, particulièrement la jeunesse de Doomu Particulièrement tàcc leen bu baax la jeunesse de doon de Doomu Yaraax la section féminine jigéen yi desoo leen ci ma bëgg ngeen tàcc seen bopp bu baax a baax baax maa ngi remercier toujours à la jeunesse la jeunesse Baobab gis ngeen tey seen prestation bu ñu waxee Baobab nag c'est la jeunesse masculine de Doomu Yaraax Baobab bu jaalawaali Baobab bu en ak àllu bambara Baobab bu koñu mbaxal Baobab bu sant yàlla Baobab bu feeraay ak Baobab bu montagne boole si aussi baobab bu yaraax képp ñoo leen bu baaxa baax donc euh, mbégte la ñu am tey ak contentement ndax lii ñu réussir tey président Mbacké la jeunesse te dit merci pourquoi elle te dit merci parce que yaa ngi jël tey sa expérience di ko partager ak ñoom di leen xamal lan mooy la baie de Hann di leen xamal ni lii ñu am tey c'est un monument yenn jeunesse yu yaraax bi tey boo leen bëggee dem géej da ngeen di fay dem Val d'Or wala ngeen paas dem ba Ngor te pourtant am ngeen géej bàyyi géej di wuti géej lanoo ko waral ndaxte géej bi nu mu demee la donc géej gi kenn duñu ko defaral kenn ñi di jóge caaro yi wala du jóge ginnaaw raay ñoo du ko defar déedéet waa Hann bel ñoom ñoo ko mën a defar te bu leen ci xaar kenn en tout cas man à partir d'aujourd'hui je m'engage je m'engage avec doomu yara je m'engage avec tous les éléments de doomu Yaraax pour que plage bi mën a set ndax bu setee tey ñun ñëpp ñoo ko bokk bu setee ñun ñëpp ñoo ko bokk mënuma continuer aussi sans remercier yi suñu partenaires yi en parlant de notre jeune frère Fallou donc qui est un chef d'entreprise muy ñoo gis ak son projet ñu am si yaakaar ndax mu nekk aussi doomu yaraax ndaxte defe naa ni doomu yaraax bu tijjee entreprise am biir yaraax wala récupérer recruter ay xale yaraax donc ñëpp dañ si war a mën a jàpp donc bravo à lui donc di ko ñaanal plein de succès sur les activités futures di ko ñaanal mu am ci ay marché yu bare bare bëri ba vraiment population Hann Bel-Air yëpp di si gis seen bopp lu président Macky Sall Seck wax sank par rapport ak responsabilité sociétale des entreprises ku nekk daf si am wàll tey jii ni entreprise bu nekk bu defoon ni moom donc tey jii jeunesse bi ñu bari dinañ am liggéey ndaxte mooy suñu coono mooy suñu problème tey Hann bel dafa nekk site bu nga xamante ne dafay regorger de ressources regorge ay entreprise mais fii ñu fi dëkk kenn liggéeyu fi bu nit ñi wàccee tey ngay xam ne nit ñi liggéeyuñu fi ñëppay jël teer bi ñii di jël kaar ñii di jël leneen ak leneen pour dem ñibbi donc loolu c'est pas normal ku xool jeunesse bu fi teew tey mooy xam nañ ils am nañ lu ñu bëgg ñun nag ñu ngi jéem a def suñu kémtulaay kattan ba jeunesse bi tey bàyyi géej gi jeunesse bi tey am ay formation jeunesse bi tey mën a am ay diplôme pour vraiment mener a njëriñ cœur, mener mën a ay parents mener a vraiment dëkk bi Moi j'ai ñu initier vraiment des programmes de formation en courte durée yu nga xamante ne tey képp kuy doomu Yaraax tu peux en bénéficier et je pense que tey ñoom ñii di def formation bi teew nañ fi ils font partie aussi de la section féminine et de la section masculine de doomu Yaraax ñu tàcc aussi bu baax baax donc ils sont en rose hein, ils ñoo nekk en rose voilà. Donc, euh, nous saluons aussi les autorités, hein, vraiment, qui nous ont beaucoup accompagnés sur l'activité. Je veux nommer vraiment la ville de Dakar en son conseiller, M. Silla, de saluer vraiment la gendarmerie, la gendarmerie environnementale, la gendarmerie, la brigade Anne Belair. Nous saluons aussi euh, l'air marine protégée aussi. Donc, vraiment, d'après nous, En tout cas, lii En tout cas, réussir nañ tey lu ñu bari lu ñu ne entreprise

bëgg leen Auchan ah kon fan leen ma remercier nag ñëpp merci beaucoup merci beaucoup